ci sunu programme mooy jataayu Falkama waxtaan ak sénégalais yi wax leen li ñu bëgg a def ci réew mi ak naka lañ ko bëgg a defee fan la ñu jëlee xaalis bi naka lañ koy jëfandikoo ak kan lay jëriñ loolu la ñuy waxtaane dinañu wër Sénégal yëpp dem bitim réew tey ñëw nañu Thiès waxtaan nañu ak cheminots yi waxtaan nañu ak yi waxtaan nañu ak population Thiès gis ngeen la représentativité qu'il y a tous les secteurs étaient là ñu wax ñu posé ñu ay questions ci mbéy mi sàmm gi ci napp gi ci lépp ñu wax leen naka lañ koy defee génne livre bi waxe programme tabax naka lay ak naka la ñuy jagalee réew donc foofu la ñu toll loolu mooy politique politique bi ñu daan def ñoo ne ay ku ngeen àndal ñëw takk fii tëgg ay sabar doo expliquer nit Nagni, tu ne pas la parole. Ça, c'est fini. Nous, nous respectons les Sénégalais et nous respectons les Thiessois. Et Thiès, c'est important pour nous. Parce que Thiès, moom mooy nekk pays réewu Sénégal. Parce que Dakar da nga ko jël mu nekk poche bu ndaw mu fees dell am ay nit ñu fay dëkk di fa liggéeyee nekk ci ay zone inondable moo am insécurité kenn xajatu fa dañ koy génne jël Thiès développé ko indi fi administration bi yëpp nit ñi topp banque yi topp assurance yi topp ah foncier bi gën a am doole ñu structurer ay financement def ay zone d' aménagement concerté nit ñi ñëw dëkk fa ba pare ñu organiser le le train chemin de fer pour transport personne transport mun nga xëyee Dakar liggéey dellu si Thiès sans problème ñi génération mais day développé réew loolu mooy indi développement nga def fi lépp moo am culture xale yi jàng nga def ko ville universitaire nga def enseignement professionnel loolu mooy suñu programme loolu la ñu ñëwoon pour expliquer. ci santé nee nga juróom-ñetti junni milliards nga jël fas yéene def. ci santé xam nga bu fekkee da ne man Sénégal lii laa am te ci biir li nga am ma am loo boole loo am te boole woo ko ci yow foosee nga calcul bi boo nee Sénégal 7000 milliards laa yaakaar ci reset am nga man maa nekkoon naa fi directeur douane xam naa recette mais ci reset yooyu ngay yaakaar xaalis bi nga mën a jëlee ci suuf si ci suufu suuf si or beeg gaz pétrole boole woo ko ci kon yow li nga wax ne moom nga am mais li nga wax li moom nga am ak li nga am du benn kon nag doo nattee huit mille milliards yi ci li mu la annoncé ci budget da ngay juum te même budget li mu la annoncé du dëgg du dëgg non seulement parce que dafa boole ay calcul yoo xam ne waru ci bokk mais du dëgg parce que li mu récupéré effectivement ci deux mille vingt deux waxu la ko parce que budget prévision la danga ne yaakaar naa am loolu kenn du ci tànn béer yaakaar naa am tant de milliards. kenn du ci tànn biir da ngay xaar ba am ko bay defaat beneen budget da ngay ñëw ne lii laa yaakaaroon am lii laa am wane wuñ ko nit ñi député ne sax dañu waroon bañ a voté budget bi donc dañuy naxaate Sénégal la réalité photographie sunu richesse yi génneeguñ te loolu nag ñeneen lañ ciy nax waaye du man. président Kama comme ñi doon wax ne yéen euh, euh, mais xam nga loolu loolu loolu ñaaw ñoo rek xam nga. waaw mais leeralal sa euh, li ma lay li ma lay wax loolu xam nga loolu loolu yàpp naa yàpp sénégalais la yow sa wàllu bopp nga ne damay politique yow pare woo nga ne nañu bàyyi élection yi parce que man pare wu ma man boo ko xamal ne kott dong mais man dama amul pouvoir reporter élection kooku c'est un manque de respect total mais loolu ñi koy def parce que dañu tiit seen problème mooy que dañu buggoon a reporter élection yi ñoom kese ñu jàpp leen ne leen bu reporter naree am na ko ñëpp taxawee ba pare ñu régler dossier justice yi ñëpp mën a bokk loolu moom loolu la ñu ragal. ak ñoo xam ne dañ leen tànn ba pare ñu xam ne bu ñu reporté tànn bi mun na changer donc ñooñu positionnement politique la def am na nag ñoo xam ne dañu ragal loolu d' naa ko ne ah bu ñu reporté waa ji mun na fa def ay galgal mais loolu mun na am mais yow boo vigilant ñu fixé lépp dem conseil constitutionnel mu joxe règle ñu dem assemblée nationale voté yëpp mun na am mais man du ma militant wu report dama ko théoriser ne bu ñu ko daree reporté nii lañ koy reporté mais man man ma gagné ba pare lu may ndax gëm nga ne élection yi dina jaar ci yoon. Sénégal mënul jaar ci yoon ci condition yi loolu laa ne wax lu leer parrainage ñi koy wut joxuñu le fichier naka la mun jaare ci yoon logiciel bi nga xam ne mooy contrôler parrainage kenn amu ko ñoom ñoo koy concevoir naka la mun a jaaree ci yoon bureau de vote yi naka la mun a jaaree ci yoon aujourd'hui carte yi nga xam ne yi nit ñi ñu ko produire kenn xamul fu mu nekk am na ñoo xam ne jotuñu seen carte xamoo lan lañ ko utiliser loolu mun na jaar ci yoon parrainage ay millions ci yan société lañ ko jëlee loolu mun na jaar ci yoon mënul jaar ci yoon mais dañuy ñefe bu fekkee loolu moo fi des dañuy ñefe Thiès enjeu Thiès bi mooy amul projet Thiès fii Sénégal bosul am un projet de développement de Thiès à part tabax projet boo xam ne day jël Thiès tëggaat ko amul fii kenn mosuloo ko génne ne la Thiès nii laa koy def peinture garab xanaa waaw peinture garab place de l'indépendance loolu jees bi bàyyi leen caxan ñun dañuy transférer capital bi développer industrie développer chemin de fer def ko ville universitaire def fi ay zone d'aménagement concerté nit ñi ñëw dëkk fi cees dundat ci sa bureau sànq nekk cinquième président est-ce que loolu mën na nekk maanaam waxuma yaay nekk président sortant est sorti président entrant c'est moi c'est en avril dama ko nekk ba pare di wax expliquer suma naka laay organiser fépp lañ toll bàyyi leen affaire futur futur. On est dans le présent. Merci. Voilà. Merci beaucoup.